di rafetlu liggéey bi bu baax a baax macha allah taxawaay bi am na solo lool. Euh, yéen a ngi ciy góorgóorlu seen kéemtalaay kattan rawatina rek yitte joo xam ne daa jëm ci sëñ bi euh, bis bi rek wax di yàlla moom macha allah comme ni ko sama sëriñ si waxee rek euh, sëriñ Modou Mbacke mi nga xam ne suñu kilifa la ak si Mouhamadou Yaddaal yi ñoom ñaar ñëpp ndeysaan samay wëllëre samay sëriñ ñu doon wax di yàlla nit ñoo xam ne cafeel gi ñu ma ëmbal ju war laa la ëmbal ñu yàggu lool léppal lu may yëkkati rek su ma leen ci wooyee dañuy ànd ak man ñi seen yitte lépp muy dox ci lu baax ak di ko wax mooy seen pas-pas mooy seen bëgg-bëgg jafe na Touba ñu nekk ñun ñett ñi te foo ñu gis ñaareel jafe nañu ñu toog semaine te gisante wuñ déedéet loolu moom mën na nekk Touba loolu ak feex la rek euh, bis bi rek mooy bisub sëñ Modou moom daanaka bisub alxuraan la rek ndax sëriñ Modou moom euh, ñu ci bari bari euh, ñenn ñi dégg nañu jaar jaaram ñenn ñi am na lu luñ ci xam ndax boo xoolee ci sëriñ Alaaji rek moom rek dafa day misaal war nga xam ne waajur sëñ alaaji ndax nit dañ daan wax ne duñu laajte diw kan mooy waajoom dañ naan koy kan moo la yar rek ñu xamee ki yar sëñ alaaji dañuy xam kon sëñ Modou Cissé kon euh, kilifa la woon kilifa gu mag la ci jamono Serigne Touba mbokkoon tamit ci mag Serigne Touba ndax bu demee ba Serigne basiru am jëmb jum ràññee woon ca jamono nga islam xawoon na tum ranke mu dem ba Serigne Bassirou ràññee ko daan ko woowee sama kàng bi ci bu sel ak alxuraan bu bu doomam tey di kon dañ naan kon puso ba dénkaan la waaye réeru ci ay loxoom ndax bu fi sëñ Modou bàyyi woon benn daara bu ñu demee ba daara sëñ Modou jur ay daar yu bari bari bari bari bari bari kon dañ naan gàcca gàcca ngalaam ba pare sëñ bi tamit yokk ci leneen loo xam tamit xañ na sëñ ba ni mu koy doxee ak ni ko sëñ daan doxe euh, bokkul ni ko si ni ko sëñ daal di waxee rek euh, ndax Sëriñ Tuubaa bi mu nekkee tam Mbàkke Kajoor daaru la ñëkkee woon di jàngale waaye bi mu demee ba xam ne am na yeneen yitte joo xam ne nit war na koo xam te mën na ko jëlee ci njàng donte njàng mooy jiite am waaye am na jikko joo xam nit mënu ko am ci njàng nit dañ lay jàngal ba pare wëlbati yeela ci liñ la jàng nga soog a xam sa borom mooy kan loolee rek sëñ alaaji da cee nekk bu fekkoon ne diggante ba siin ba kaamil bi jeex xëy na nit mën na koo jàng waaye buñ la ci yeew tijjil la ko xëy lal nekk ca biir araf ya mën ko bañ a xam sëñ bi rek wax dëgg alhamdulilah ndax mi ngi ñu koy jàngal ba ñu xam ko pare wala tamit dañu ko yeeye ci biir téere bi loolu jafe na nga gis doon sëriñ boo xam ne mën dem fekk mu boole yëpp moom nag am na taw feexu mën a boole def ci dal di ko def ci taw feex di ko def tamit ci xol bu sedd guy ànd ak yéen bànneeku dal loolu lu jafe la bis ku ñëw rek di nga xam ne bis wax dëgg yàlla bisu nitu yàlla la ndax dañuy wax ne nit bu ñu la nitu yàlla da ngay xool ginnaawam nitu yàlla ginnaawam du faar déedéet ginnaawam du faar képp koo gis ñu ko daan wooyee nitu yàlla xool ginnaawam rek su ginnaawam faaree rek nga ne kooku lam daan wootee lañu xool leneen la waaye woote bi jëm ci yàlla waaye bu dee woote bi ci yàlla jëm liggéey bi moom du ma sa faar saa su nekk rek di gën a yees di gën a bees di gën a jëm kaw liggéey bi rek benn daara la woon léegi da ñaata daara léegi moo nekk ci Euh, sukkandikoo jugee ko ci pencum sëñ moo Cissé ay daar yu bari bari la te yëpp rek sëñ alaaji fi leen liggéey bi macha allah mu rafet lool xale yi alxuraan di ku fi ñëw di nga xam ne ñii xale ñu ngi góorgóorlu ci tajwid bi euh, ci ahkaam warsa bi ak xabs bi ñu ngi koy jàng macha allah ku ko dégg nga xam ne ñii fañ jëm mooy di ko jàngee ni ko Abdul Basit jàngee wala Mahmoud Khouchayri foofu lañ jëm njàng mi sell na tegu na ci yoon euh, di ñaan suñu borom fekkee ko at yu bari bari rek lépp luñ ci yéen suñu borom kàtt na ne ba mën koo mattale ci njiitu moom mooy euh, am yërmande ba pare am pédagogique ci wàllu njàngale ndax sëñ Modou Cissé bi nga xam ne mooy waaju sëñ Alaaji Cissé euh, ba jëmmi jamono ji ñu toll nii tey bu ñëwaatoon ci jamono njàngaleem mën na ànd ak euh, jamono yi tey loole pédagogique la ba pare mu amoon yërmande amoon yar ak teggin ndax nit boo koy jàngale li njëkk mooy ki ngay jàngal la nga xam moom mooy kan li ngay def ci moom ndax yàlla na ko wala yàllawu ko ndax njàngaleem léegi fi na da caa bokkatul ndax masla da cay bokk gis ngeen ci baas bi ñu ngi leer naan Modou Bassirou bi jàngalee xale bi boo ko fekkee ci euh, heure jàng bu wàccee moom xale yi daanaka euh, dañuy dañuy kaf di kal sëñ daara doon gaynde gaynde moom ci koy gaynde lay yor waaye rek nit day fexe yor ci koy nit ba mën a defar nit suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon la dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ne su ko xaari doon jar doonaa ko am